ñàkkum karange gi mi ngi gën di yokku ba jéggi dayoo fii ci capitalu ndakaaru bu nekk ci banlieue bi loolee nag di gën di jaaxal askan wi ay cas agression yoo xamante ne ni mi ngi gën di am bis bu yàlla sàkk bi ci mujj ay ci suba ki nga xamante ne ni moo nekk fële ci corniche bu géejawaay benn wayju bu góor moo jaar ci kaw ay agresseur yoo xam ne ngir mu mën a muccal bakkanam ñoom ñëpp nag dañoo yéegoon ci ay scooter daal di gànnaayu ba fees dell ñaa ñeent ci ñoom daal di cay jëlee ay gaañu gaañu seen situation nag fu mu toll nii dafa jéggi dayoo bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne ni moo daal di jaar ci seen kaw moom nag la mu xam ne bokk na ba mu yóbbu soxnaam ci la li ni mel daal di xew waaye mujj na caa génn ci boobu agression donte sax ne yàq nañu li nga xamante ne moo di parabrisam yàq ko ba mu yàqu yaxet ñuy ñaan kilifa yi nekk ci gox boobee ak ñi jiite réew mi muy sàkku ñu daal di cay taxaw xar ci seen tànk tubéy ginnaaw ba ñaari weer kepp dese li nga xamante ne moo di élection locale yi.